oustaz kii dafa am benn laaj bi muy laaj moom nag nee na euh, dafa gis benn waajoo xam ne téléphone yaayam la vérifié gis ci xaritu papaam doon doxaan yaayam ci téléphone bi di ko wax yenn kàddu yi dem na sax ba bindal ko ne ko boo tasee ma takk la léegi nag moom bi gannaaw bi mu gisee loolu amal na ab en yaay ji ba yenn liggéey wala yenn yoo xam ne yaay mu ngi koy sant sax da koy gantal mais yaay ji ba tey comprendre moom ba tey muy garder secret bi dem na sax banaan moom est ce que du xaru parce que rus na jàkkaarloo yaay ji wax ko yenn nii te xalaatu doon yaay ji jikko boobu tamit ci moom moom nag li muy laaj mooy ana ban atte la yaay ji di am ak euh, soi-disant faram mooy xaritu papam ak pa bi nga xam ne mu ngi ci kër gi. waaye léegi paa bi luy problème moom papaam bi ko jur. paa bi yëgul yëgul ci nit. dara jotu ko moom dam dara jot ko ok. Ah. paa bi dafa feebar. amee ay tension diabète genre feebaru mag yi rek. Mhm. ba tax na moom buggul yenn yi sax paa bi yëg ko. parce que mën na ko andil problème tamit problème de santé genre. d'accord moom daal dafa préféré garder secret mais mu ngi ciy su ma la déggee mooy moom dafa feebar. Mhm. papaam dafa feebar. papaam moom dafa feebar. mais xaritu papaam mooy doxaan yaay. yaa ngi dégg tam yaay dafa nekk jigéen ñoo xam ne seen jëkkër bu feebaree dañ leen feebaram wóori keneen. Hmm. peut-être loolu mën na ne. léegi mu jaral ko moom mu dem ba vérifier ba gis. léegi dafa bëgg a xam daal jamono ji métit la àndal bay waaj sax xaru. waaw xam nga euh, Assane yàlla ñu yàlla euh, dimbali ma jigéen dama ne bu ñu tegee mbon mbon baaxul ci góor baaxul ci jigéen xam nga baaxul waaye tey ma jigéen bu ñu ko tegoon nii ni foog góor bon wala jigéen bon koy tànn ñoom ñaar pour mu bon. góor. Hmm? non baaxul. bu ko jëloon teg ko ni mënta ñàkk ci góor ak jigéen kan ngay tànn pour mu bon. góor jigéen moomul bon. lii rek laa soxla woon. Mhm. baasal na góor bon ba dugg boîte vocale. Mhm. mais jigéen xam nga lu ko jig baax rek nga ko jig. Mhm. jigéen mooy jur ku ne. moo naan gone gone mais ku ne jigéen mooy jur ku xam nga Assane sëy confiance la waaye sëy yërmande la waaye sëy du intérêt daf ci am ñoo xamante ni seen sëy lépp dañ koo làq ci biir intérêt mais sëyuñu ko te yàlla tax te booy sëy nag dafa am loo war di sóor Assane naka la nit nekkee ci biir néegu sëyam sa jëkkër dafa feebar. Mhm. mais da nga ko war a toppatoo pour mu wér. maa ngi koy toppatoo xanaa. yow sa jëkkër a ngi feebar. waaw yebu ca moom. mais wax merci loolu am sens. Hmm? sa jëkkër dafa feebar. mais nga ko pour mu wér. yaa ngi koy topp maa ngi koy toppatoo. yow léegi toppatoo too sa jëkkër pour mu wér nga làqatu di di doxaanante ak ak kan. xaritu sa jëkkër yow. te loolu dafa bari Sénégal de. mais nag mais nag oustaz booy bi est-ce que moom lislaam waxu ko dara. ankay. mooy booy bi dem di vérifier téléphone. ankay. ndax it kooka naa am sax nekku sa woon mais ba mu demee di vérifier rek sa la ko yàlla won loo xamante ni. xam nga soxna baaxul mooy luñ hmm. luñutu hmm. baaxul. yàlla bëggu mhm. dañ kumpa di sob di vérifier lu ñu la vérifier wul mhm. di seet mais nag yàlla bu la naree weer mhm. xam nga loolu keneen mën na ko gis mais ci doomam ñaar ñi amuñu amuñu ban booy bi rek moo am problème mais ñaar ñi moom waxaguma leen dara bàyyi Assane li ma bëgg ñu xam ko mooy waaw man si booy bi dem di vérifier téléphone jàmbur si laa yem man mu nga xoolal Baye Assane lu ma bëgg ñu xam ko téléphone yaa ngi toj de mais ku nekk yem sa téléphone gis nga pour la vérité ku nekk yem maanu bareetul ci jigéen ñi bu ñu dee fukk lañ jàppal ne ñett ci maam. góor ñi moom waxaaleetuma leen. mais jigéen ñi pour pourquoi lu luñ toog sëy seen sëy yi. ñu ngi sëy de lan moo tax ñu yàlla ci seen biir néegu sëy yi. mais di sëy di sëy ba sa doom jàpp la jàpp la ngay wax ak sa ngay wax ak kan kan ngay wax waxal sa xaritu jëkkër Assane lii dafa ñaaw dafa ñaaw xale bu jigéen bi li ñu dafa salte léegi lan la si diine wax. mais sariya bëggul lool. <laughs> l'islam ni mu lay wax da lay tënk directement. boo amee jëkkër di njaalo. na njaalo wut de xanaa. oo oh, déglu kan. mais Assane bul xam. xew ma takk la ah, da ngay da ngay globaliser. ah waaw léegi day bàyyi xam nga ki la am tuuti moom kooku bëgg te def ak dara xam nga ki la am dara na ko boo tasee Assane bu dee njaaloo am na ci bàyyi xaritu jëkkëram bu ko envoyé message def na lu bu dee waaw boo ma takk la loolu dafa xaram ci bépp jullit nga tiim jigéen ju ne ci biir néegu say hmm. nga naan ko boo fasee ma takk la loo xaram la beneen mooy acte boobu mu expliqué xam nga tey ñun ñi kenn leeruñu ci ndax ndaw si am na lu mu seq ak waa ji wala dem si ni ñu waxee ni ñu waxee ni di seq guñ dara xam nga seq guñ dara hmm. kon ndaw si def na lu xaraam ñu ngi koy bindal bàkkaaru def lu xaraam waaye su fekkente ni nag la ñuy ñaaw njort am na ak amu ci am na attemté atte nañ ko fi ba tey mooy bu fekkente ni moom egg naa moom ci njaalo charia neen nañ ko rey hmm. mais dañuy reyaale booy bi xanaa booy bi kenn du ko rey booy bi daa njaalo dafa def bàkkaar rek hmm. lëññitu na sot na vérifié nag portable yaayam Assane mi ñu war a lijjanti xam nga mooy lan ndax suñu société bi lii am na fi amu fi tontu bi xam nga mooy lan en kay am na fi jigéen ñeen koy def dañoo maanuwul. ñoo koy def ñoo góor ñi. ah ñoo góor ñoo góor ñoo ko bokk. dañoo maanu. ñu la déggee daal ñoom ñaar si euh, dina kii sariya rey na leen. la sariya rey. ñaar ñi doon njaalo wante du doxaan. non déet comme ndaw si mi ngi doxaan. comme ndaw si waajaan koy doxaan te mi ngi ci biir néegu sëyam. Mm. def na lu xaraam. non nangoo yaa ngi dégg. Mm. non déet déggoo la ko waajal mais bu yeggoon si njaalo ja daal. egg naa moom ci boo tasal boo faseel ma takk la. waaw ah, bis boo tasee ma takk la mooy nangoo gut. waaw xam nga ñu ngi ci yoon bi mais dégg gi ko xale bi dégg ba xale bi nar a xaru ji ngir def yu bon yi nga xamante ni yaayam mi ngi koy def problème qui se pose mooy gis asan laa yastawi alxabis wa tayib loolu la alquran wax walaw ahjabaka kasratu alxabis yi wa taqullaha yaa ulul albab laalakum tuflihun yàlla nee na bu àdduna du gudd tànk mukk ba góor gi tëj ay tànkam jigéen ji tëj ay tànkam yem ak jigéen ji ubbi ay tànkam duñ ma sa yem mm, pourtant ñaar ñaar yëpp a ñaaw de dama lay laa dama ni la lu jigéen juy tëj tànkam téye boppa hmm. du mës a yem ci àdduna ak jigéen juy ubbi tànkam asam hmm. loolu wax ju leer la hmm. walla lëndëm leer na naaj ne seen biir mi ubbi tànk doy loo leen seen borom kër yi ngeen sëy pourtant nag pourtant nag dégg naa jigéen ñi ubbi tànk moo gën <laughs> ah. non non moo gën. non non man dama mënta comprendre jigéen gi lay ubbi say tànk moo gën gi lay ki koy tànci bañ nga ne doo am foo jaar. non bu dee biir sëy sa kay kenn waxatu ko. looloo ah, da ngay da ngay leeral da ngay leeral da ngay nekk ba pare di def da ngay leeral. ah da nga jii ah, eh. tëj moo baax. jii tëj kay bu baaxee amul njariñ. mais fu sa borom dagan na la ubbil ubbil oustaz jigéen ñi nga xam ne sa borom daganu la araam na ci yow. ubal oustaz wuyu ba ubal. croix rouge kii ngir yàlla.